Fass point de presse su Ada Fass moo fi woo journaliste yi wala promoteur bi sàkku ko mu dëgmal tàkkusaan bu rëy du ne dimanche du ne le 26 dimanche la ñuy wax fële ca arène nationale LP production collaboration ak petit promoteur ñu dëgmal tàkkusaan bu rëy Ada Fass ak Coly Faye yaakaar naa ne tàkkusaan boobu ay ndaanaan yu bëri war nañ caa wane seen bopp LP production di xale bu ndaw ñëw ci làmb soxla ku ko jàppale ànd ak petit promoteur yaakaar naa ne amateurs yi ñu ngi koy waxtaanee Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 mu nekk combat espoir combat jànq combat boo xamante bi ni réew mi yëpp ñoo koy waxtaanee comme ni mu demee woon démb ci soq ak franc léegi dañuy nuyu xale bi nga xam ne mooy Ada Fass borom ndakaaru léegi sax rax na ci Espagne ak yeneen réew yi bu ko defee mu nuyoog mbokku internet yi ñu taabi ci waxtaan maa lay siyaar baax la Mbappé di la bëgge awuzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul joolaxa an misbah karafal waaw maa ngi nuyu di leen fay di leen ziar di leen dalal waaw média bi yëpp ñu te yëpp bàyyi seen yite mm-hmm. teew ngir Ada Fass maa ngi lay la ziar di la dalal nga dëgmal takkusaan bu rëy sa diggante ak Coly Faye numéro 2 mais yaakaar naa ne question bi ñu war njëkk a mooy question bi amateur yi posé lan moo waraloon voyage bu gàtt bi waaw daanaka làmb ji ji moo ko laaj rek parce que du làmbu làmb bu ndaw daal làmb bu ñu soxla la bu ñu yittewoo la ak tamit am lu ñu fa doon entraîné am lu ñu fa doon liggéey lu ndaw rek. Mm. moo war loon suñu voyage bi. Mm. doole wala mystique wala expérience parce que la nga fa def bëriwul. non expérience expérience la doon yokku soxla ñu doole soxla ñu mystique expérience rek. Mm. làmb. bu ñuy teg jéego di dem dañuy foog il faut ñu yokk expérience yi. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah am na solo bala maa wéyal yaakaar naa ne mbokk presse ku ci bëgg a li nga xam mooy question rek ñu continuer ko Thierre bu disponible rek mën ngaa doxal bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi. waaw Aada dañ koy nuyu di nuyu képp ku ñuy bàyyi xel rek. Aada suñu première question mooy lan moo la dugal ci qualifié numéro 2. waaw Thierre maa lay nuyu di la fay dafa nekk champion nekk mbër daan fi ay champion bëri samay mag mu nekk sama mag jiitu ma si làmb ma def samay preuve xam na ne champion la la. Mm-hmm. tamit def naa samay preuve loolu rek moom ma dugal ci moom du leneen. ñu bëri ñu ne combat bi est-ce que nekkul euh, risque ci carrière yu Ada man dara nekkul risque sama kanam ndaxte damay liggéey damay entraînement. Mm. sport la ñu wax du leneen entraînement rek seen le travail qui paye. Mm. waaw dañuy liggéey quoi te ay xale lañ. Mm-hmm. mais est-ce que xam nga adversaire bi bi nga jël ak yi nga daan am am na différence. non man adversaire du rëy sama laa sama kanam samay bët ndaxte xam naa li ma mën xam naa li may def mm. ak ko mënti doon. man kilifa yi réewul samay bët te balaa ñu may xam arbitre bi sifflé génn suñu diggante incha allah. mu nekk mbër boo xamante bi nii képp ku mas a bëreel ku nekk da lay agressé dox sa kaw andi la ay jafe-jafe est-ce que Ada Fass bu arbitre bi sifflé kilifa yi dagg jëng yi agressé la lan lan fa mën a fekk. moo daan daa amul problème ñu ngi koy xaar incha allah bu arbitre bi sifflé na ma agressé ñëw ma lu ma ko wax yomb na. Hmm. bu taxawee daanu bu ñëwee daanu. kon bu ko songee mu daanu. lu ko ci combat bi. mu si def daanu kon na taxaw rek daanu ñibbi. aada baa xeeboo Coly Faye mii nii jiitu la ci làmb ëpp la ay takkusaan yoo xamante bi nii jongante na ko ci biir làmb baa xeeboo ko. xeebu ma ko champion la mbër la sama grand la mais qualité yu may daan si làmb moom ak qualité yu muy daan bokkul moo daan daan xam nga làmb bu baax moo daan daan man damaa mën a bëre macha allah damaa mën métier bi. dama ko mën te ponkal jaaxaluma dama yàgg mbapat si àll bi. Mm-hmm. damaa mbapat ba sonn. moo mm-hmm. tax man ay. entraînement làmb jaaxaluma quoi. Mhm. waaw làmb mënu maa dépassé. Mhm. waaw mënu maa dépassé. nga dëgmal tàkkusaan bu rëy boo xamante bi nii amateur yëpp dan ne ci la ñu taxaw nangul Ada Fass wala ñu bañal ko parce que ci combat bi mu am diggante Coly Faye mu combat boo xamante bi nii daf la war a da nga war a libéré gars yi xaw ma yaay daan xaw ma yaay daan xaw ma da ngay niin da war a libéré gars yi pour dem ci kaw est ce que xam nga li la koy may ak combat fi mu toll ci dayoo. incha allahu rabbi moo tax ñu jël vol bi dem uti expérience combat bi xam nañ fu ñuy yóbbu xam na lu ñu ñuy mën a indil si làmb moo daanda hmm. xale maa gën a xale maa gën a xale maa na a trois fois je suis encore xale bu ndaw laa mais dama gëm sama bopp moo na qualifié de mag ma fuuf si làmb est-ce que magante ngeen moo la jiitu moo mag fuuf këli hmm. xale laa waaw mais dama mën a bëre macha allah combat de la soirée Azoukra écurie Grand Yoff Mbolo Garga écurie Rebeuss Garga moo ngem moo lu ñuul li wala boo ngemal vax bi teg lu weex li Azoukra moo ngem moo ngem bu jaune bi maanaam signature bi doo doo na eh, tànk waay lay la laa eh, Azoukra doo na tànk da doo ko tànk Azoukra def na mbir eh, Garga bu rëbës daa jaaxle Garga bu mbëbës dafa jaaxle

Sokh Kele Rebeu jël door na ko door na ko jël na daan wala boog nu mu koy def takk na mbot ma mbot da daanu da ngay daanu daanu oh da ngaa forcé xale ba fam la yegg dafa sori daanu nga oh Sokh daan na wala boog Sokh Kele.

Sixième combat de la soirée Boy Virage moo ngembu ngembu vert blanc bi Bébé Lambaye Bébé Lambaye door na léegi Boy Virage Bébé Lambaye Boy Virage Bébé am na ñaari avertissement Boy Virage am na benn avertissement jël na ko yéen na ba ci kaw waaw waaw oh Bébé Lambaye Bébé Lambaye yéen suuf Bébé Lambaye la ilaha illallah mbokk yi Bouloum Junior Bouloum Junior Boy Sylla Double Junior moo gem moo gemul bu leli Boy Sylla li mu ngem bari na ay morceau comme jaxas yu weex yu xonk yu rouge yu blanc yu noir yu bleu Boy Sylla à droite Double Junior à gauche seen lewaatoo Boy Sylla Pulum Pulum Junior jegeyantoon nañu Boy Sylla à Pulum Junior à gauche Idy nooyeetul waxatul Idy xel ma dem na Idy <laughs> Pulum Junior Boy Sila eh ñoo xeex doomu daanu Pulum Junior Boy Sila laay lay la laa jël ba rëpp na Pulum Junior mbot na ko Pulum Junior Boy Sila moo mbot Boy Sila bul forcé Boy Sila bul forcé Boy Sila Pulum Junior Hold my hand for the particular tool, particular tool, check it out, and you'll go to song. Boy Sila Bulum Junior Bulum Junior moo ñu war ginnaaw Boy Sila Bulum Junior Boy Sila Bulum Junior Boy Sylla Pulum Junior Boy Sylla Pulum Junior Boy Sylla ngay dóor Boy Sylla Pulum Junior eh Pulum Junior da lay bot da lay bot nañu lay leena la takk na ko da daan Oulim eh, Junior daan na Boy Sylla Oulim Junior daan na Boy Sylla Ibi Koor daan na Ibi Koor daan na Ibi Koor daan na eh waaw Quneum Junior la muy def Quneum Junior Quneum Junior daan na Boy Sylla borom rek. waaw tey ma gis nga ñëw ànd ak mbooloo bi confiance bi sa digganteeg ñoom lan la. waaw sëñ Fallou rek di ñaan yàlla mooy ñu ndab lépp ñoom la mais combat bi yàlla yàlla ànd ak man sama bopp laa koy bëreel bëreel ma koy suba reer. lu tax sa bopp nga koy bëreel. non dama ko soxla rek. di ñaan yàlla yàlla yàlla. jaasi bëri daanaan la de. non daanaan la nangul naa ko. champion la fii kuy tax ngeen rek daanaan bi. yéen ñaar ñëpp ngeen di wàcc lutte simple bi. tey naka ngay bëree lutte simple ngay andi wala ngay xeex. wala si bëri nga du a wane sa bopp. non ñaar yëpp lay indi. Ah. allah. doo soog. changement rek xam ne xale la moom ci liggéey la toll ki moromam dafa war a gën a yokk lépp lu mu doon def ba xam ne ay morom lay mu leen la ko woon demal rek. day nekk premier grand combat ñu gis ne ndef stade ak ambiance bi mu andi tey confiance bi lan la. waaw loolu la war a def ndax dama nekk dama ba juróom la nekk kër mbër ay baay nekk mbër ay nijaay nekk mbër kon mu dafa nekk mbër incha allah gis ne ndaanaan lay bëreel muy jaasi pël koo xam-xam ne ndaanaan la est xam ngeen ko man mbir moo waaw mais ay morom lañ comme li ma rek ne ay naw la ñoo xam ne ku nekkoon nga mën daan sa morom mais damay ñaan dal wax daan quoi mais booy bëri war a xam ne xale bëre mooy bëri di ful fay la ba kenn du mere même boo daanoo waaw daan yi kusan kusan huitième combat de la soirée ngi ne si biir nit ñi Mbaye Sempi am am ak Samba la numéro deux combat spécial bi préparé leen huitième combat de la soirée moo ne si biir géew bi diggante Malam Ñaane numéro deux ak Ndiak Sow bu école de lutte Balla Gaye Malam Ñaane moo ne nii moo ñëwoon gannaaw Ndiak Sow mu war ngeen bal xonq li présentation mu gaaw. yaa ndem bare. boo ñu may ñu présenté. d'accord ñëwal. dama la bañ dagg rek. waaw waaw ak ñëwal. ay ca Nakaw huitième combat de la soirée Nakaw. Seydina Ndiaye Nakaw. ayca ah, et combat spécial bi Mbaye Sène Pi ak Sack Balla numéro 2 préparé leen ah, buñ ci jugee dem ci grand combat bi waaye daal bii mooy huitième combat de la soirée. ayca may leen ñu bëre ak ay waay. yaa ko gën a gaaw yaa ko gën a vif amatu dara lu yéex ay ca may leen ñuy présenté biir kii yaa gën a gaaw combat bi amul dara la dafa yaakaar ne yaa ko ëpp doole boo la ëpp doole ëpp la doole indi vitesse lépp la topp ñu dem encore bi pas deuxième série élévation talon may ma dama talon bu gaaw ay sa génn leen may ñu naa maa ngi lay fay moom fils. dañu gis nga ni sa poulet muy jaasi pël muy bëre ki nga xamante ni ni xale la muy Talfa mu nekk premier grand combat naka nga ko andee tey. waaw ni ñu koy indee rek mooy li ñu indee jën tayre di koy indee mbañ a tayre di koy indee bébé jën tey suba dafa am xale yoo xam ne waajal. pour ñu jéem a dem au sommet ci la bokk xale bi am ci moom yaakaar dëgg dëgg dëgg parce que lépp lu mbër jàpp rek am na ko mën naa bëre mën na xeex te avenir u écurie la donc moo tax waajal nañ ko normalement pour mu ñëw gagné combat bi tey vraiment on a tiré tous les atouts pour combat tey mu gagné ko tey incha allah. mais kontaan laa ba jaa ngi daw. waaw jaajëfati waa mbokk yi neuvième combat de la soirée Mbaye Simpi Sabala numéro 2 Sabala moo ñu woon Sabala door na léegi Mbaye Simpi Sabala Sabala moo takk morceau bu xonq bi ci bopp bi Mbaye Simpi Sabala Sabala numéro 2 Mbaye Simpi taxawal. eh jël na tànk ba Mbaye Sempi jël na tànk Sabala bàyyi waat ko Mbaye Sempi Sabala Sabala Mbaye Sempi door ko Mbaye Sempi ak Sabala Mbaye Sempi buy door du xool day gëm rek sànni ay coup est-ce que loolu wóor na Sabala Sabala Sabala numéro 2 mooy Sabala numéro 2 Mbaye Sembi Sabala ngay dóor mbaa du daanu Sabala ak Mbaye Sembi Sabala dóoraan na Sabala a ngi koy Sabala numéro 2 ak Mbaye Sembi jël na ko eh Mbaye Sembi baa du ko Sembi Mbaye Sembi baa du ko Sembi Sabala fàq na daanu na lu daam mu daanu mu daanu ah affaire tax na suuf nañu déglu abidi nañu déglu abidi. nañu déglu arbitre Mbaye Sempi daan na Sabala. ma dem na maa nekk maa dem liggéey wala mbokk yi grand combat baa ngi noonu journée Diaks production le 29 juin stade Iba Mar Diop réew mi arbitre baa ngi wax ay jugeem Diassy ak ki nga xamante ni nii mooy Talfa Diassy Peul à gauche Talfa à na léegi waaye demul Talfa door na ko Talfa Diassy Peul ngi dox ci kaw Diassy Peul moo ngi dox ci kaw Diassy jël na tànk ba da koy daan génn nañ bu leen yegsi doy na bal jàmbur jeex na waaw waaw Talfa Diassi Peul lay lay la la xale yaa ngi noonu Talfa Diassi Peul xale yi dañoo bëgg a wane seen bopp xale yi dañoo bëgg a marqué seen empreinte Talfa Diassi Peul doon na ko Talfa ndànk jël na ba jël na ba eh Diassy Peulh wow Diassy Peulh daaw sàq na ko mu rëpp da daan bij na ko ñoo ngi koy manœuvre jugaat na fàqaat na ko Talfa lu muy dem ma ngay génn waaw waaw eh la la Talfa Diassy Peulh <laughs> Talfa am na benn da doo ci ginnaaw saaku ya mais xale yaa ngi bëre de laay lay la laa Jax jaajëf Jax waat nañu mbaa kenn du ci juum ci ñoom ñaar Talfa Talfa Diassy Peul Talfa da ko bëgg a imposer mais Talfa ndànk Diassy Peul ndaanaan la bul forcer Talfa bul forcer Talfa Diassy Peul moo ngay dóor Talfa moo ngay dóor Talfa Diassy Peul laa xale yi bëri nañu lu neex xeex nañu lu neex Talfa Diassy Peul Diassy Peul à gauche Talfa à droite Talfa Diassy Faye écurie Soumbédioune Talfa Diassy Peulh Talfa nga koy puus mu génn Diassy Peulh da ngay am avertissement Talfa am na deux avertissement Talfa Ndiassy Peulh Talfa Ndiassy Peulh Talfa Ndiassy Peulh faw ñu xeex mënu cee ñàkk xeex mënu cee ñàkk Talfa Ndiassy Peulh Moustapha Diassi Peul Talfa Diassi Peul Talfa Diassi Peul Talfa door na ko léegi góos bu daal Talfa Diassi Peul Talfa Diassi Peul Talfa Diassi Peulh eh bëre leen door na ko Talfa door na ko góor suraat waaye dalul Diassi Peulh daa bëgg a dem Diassi Peulh daa mel ni xeex bi enjeu wu ko Talfa Diassi Peulh Diassi Peulh

Talfa ndaanaan la Talfa tey dafa teg jeexal waa Parcelles yi Niang Ballo am na ndam Talfa Dia Sy Peulh Talfa Diassi Peulh Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul Diassy Peul ngi dox ci kaw Talfa Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul Talfa Jaasi ñooy noon ci digg géew bi Talfa Jaasi Pël dañoo joxe énergie ñoom ñaar bu bari faw ñu noppalu tuuti Talfa Jaasi Pël teq na ko Jaasi Pël doon Talfa Jaasi Pël waaye Jaasi Ba action yooyu dañ koy àggali boo ko doyee tànk mu turaf da nga dem woo ko ndomba wala nga boof ci kawam abit àtte na nee na leen bëre leen taxaw andi wu leen fi Leewtoo baa ngi bëgg a yàgg Talfa Jaasi Pël abit sëflawaat na ñu ngay lewaatoo xeex bëre door Diassy Peulh da koo bëgg a takk Diassy Peulh fa mu jàpp baax na Diassy Peulh fa mu jàpp Talfa baax na ma ngay génn Diassy Peulh génnaat na na Diassy Peulh am na trois avertissement abi sëf la waat na Diassy Peulh Talfa Thiassy Peulh Talfa Thiassy Peulh Talfa Thiassy Peulh Talfa Thiassy Peulh Talfa Talfa door na léegi mbaa du ko dóor mu daanu Dia Sy Peulh Talfa Sipël Talfa Dia Sipël Talfa Talfa Dia Sipël Dia Sipël Talfa

Nancy Peul Talfa xeex nañu xeex nañu Nancy Peul boo génnaatee mu jeex Nancy Peul Talfa may na ko tànk génn nañu bëre nañu yéen Alpha am na deux avertissement Diaz Peulh am na quatre abi siflewaat na Talfa Ndiaye si Talfa Ndiaye si Talfa Ndiaye si moo ngi koy manœuvrer ñu ngi ko bëgg a def dafa bëgg a jël tànk ba door na Talfa da ngay xeex ba doomu daanu du ci am sonn na Talfa jaasi pël ndànk da ngay bëree waaw waaw <laughs> waaw waaw xoolal ma lii waa lii lan la Talfa eh, nga def lu ko neex Talfa ngay def lu ko neex. <laughs> Talfa a ngi def lu ko neex fi mu toll nii Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul ñoo ngay noppalu lenn fu ne ci énergie dafa bari Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa da ko bëgg a génne eh Talfa Talfa la nga mbaa du la yenu daan Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh dina ko daanam du ko daan day génn Talfa day génn Talfa day génn Diassy Peulh delloo si na ko ci digg géew bi Talfa Diassy Peulh boo defoon ndànk Talfa di nga daanu Talfa boo defoon ndànk di nga daanu. Diassy Peulh woon daa bëgg génn Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy ma ngay dóor Diassy Peulh a ngay dóor daanoogul da koo daan daanoogul Talfa Diassy Peulh woon na lay lay la xale yi bëri nañ combat bu xale yi bëri nañu combat bu metti Jackson man lii ma dóor war na ko ndomba hey Pël dal faa génn waay waay xale yi waay waay lamb ja na waay oh man kontaan naa oh noppalul xoolal lii na bëri nañu jàngat nanu waay waay dal Kër Faa xale yaa ngi bëree waay waay li neex na waay lii mooy làmb làmb ngi nii Talfa dem na Ardo ñëpp kontaan nañu ñëpp kontaan nañu mbokk yi grand combat baa ngi noonu journée Diaks production le 29 juin stade Diop Iba Mar Diop il vingt heures et demie arbitre baa ngi wax ak ay juge am ak ki nga xamante ni nii mooy Talfa Diassy Peulh Talfa à droite Diass permet na léegi waaye demul Talfa door na ko Talfa Diass Peul Talfa a ngi dox ci kaw Diass Peul Talfa moo ngi dox ci kaw Diass Peul jël na tànk ba da koy daan génn nañ bu leen yegsi ci ñun doy na booy jàmbur jéem na waaw waaw Talfa Diass lay lay la la Talfa Diassy Peulh xale yi dañoo bëgg a wane seen bopp xale yi dañoo bëgg a seen empreinte eh Talfa Diassy doon na ko Talfa ndànk jël na tànk ba jël na tànk ba eh Diassy dafa wow Diassy Peulh daaw sàq na ko mu rëpp da koy daan bij na ko ñoo ngi koy jugaat na fàqaat na ko Talfa Talfa lu muy dem ndànk ma ngay génn waaw waaw. Eh! day lay la la jaasi pël dal am na benn avertissement da koo doo ci ginnaaw saaku ya mais xale yaa ngi bëre lay la la Jax jaajëf Jax jëlal dawaat nañu mbaa kenn du ci juum ci ñoom ñaar Talfa Talfa Diassy Peulh Talfa da ko bëgg a imposer Talfa ndànk Diassy Peulh ndaanaan la bul forcer Talfa bul forcer Talfa Diassy Peulh moo Talfa moo Talfa Diassy Peulh laay léeg laa xale yi bëri nañu lu neex xeex nañu lu neex. Talfa Diassy Peulh Diassy Peulh à gauche Talfa à droite Talfa écurie de Dorate Diassy Peulh écurie Soumbédioune Talfa Diassy Peulh Talfa a koy puus mu génn da ngay am avertissement Talfa am na deux Jaasi Peul Talfa Jaasi Peul faw ñu xeex mënu cee ñàkk xeex mënu cee ñàkk Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa door na ko léegi góos bu daal Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh eh bëri leen door na ko Talfa door na ko góor su raat waaye dalul Jaasi Pël daa bëgg a dem Jaasi Pël daa mel ni xeex bi enjeu wu ko Talfa Jaasi Pël Jaasi Pël Jaasi Pël est-ce que tey li na dagg Jaasi Pël Talfa Talfa dem na Talfa dem na fàq na ko da ko dóor na ko Talfa Diassy ko doomu daanu ñu koy xeex Talfa Diassy Peulh eh laabu bandi la laay léeg-léeg laa eh Talfa ndaanaan la Talfa tey dafa teg jeexal waa Parcelles Niang Ballo am na ndam Talfa Diassi Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Diassy Peulh ngi dox ci kaw Talfa

dañoo joxe énergie ñoom ñaar bu bari faw ñu noppalu tuuti Talfa Diassy Peul teq na ko Diassy Peul doon na ko tànk léegi Talfa Diassy Peul waaye yooyu dañ koy boo ko doonee tànk mu turaf da nga dem woo ko ndomba wala ci kawam abit àtte nee na leen bëre leen taxaw andiwu leen fi Leewtoo baa ngi bëgg a yàgg Talfa Diassy balaa bi sëflawaat na ñu ngay lewaatoo xeex bëre dóor Diassy Peulh da koo bëgg a takk Diassy Peulh fa mu jàpp baax na Diassy Peulh fa mu jàpp Talfa baax na ma ngay génn Diassy Peulh génnaat na Diassy Peulh génnaat na yëmbal am na trois avertissement abi sif la waat na Diass Peulh Talfa Diass Peulh Talfa Diass Peulh Talfa Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël Talfa Talfa door na léegi mbaa du ko dóor mu daanu Papa Sipeul Talfa Dia Sipeul Talfa Dia Sipeul Talfa Talfa Dia Sipeul

jël nañu Jaasi Peul Talfa Jaasi Peul am na carte avertissement Jaasi Peul am na carte avertissement Cassy Peul Talfa xeex nañu xeex nañu Cassy Peul boo génnaatee mu jeex Cassy Peul Talfa Talfa may na ko tàng génn nañu bëre nañu yenn Moustapha am na deux avertissement Diaz Peul am na quatre. Abi sifle waat na. Bye. Talfa Ndiaye si Peulh Talfa Ndiaye si Talfa Ndiaye si moo ngi koy manœuvre ñu ngi ko a def dafa bëgg a jël tànk ba door na Talfa da koy xeex ba doomu daanu du ci am na Talfa jaasi pël ndànk ñoo ngay bëre waaw waaw <laughs> waaw waaw xoolal ma lii waa lii lan la Talfa eh, lu ko neex. Talfa wa ngay def lu ko neex Talfa wa ngi def lu ko neex fi mu toll nii Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul ñoo ngay noppalu lenn fu ne ci énergie dafa bari Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peul Talfa da ko bëgg a génne eh mbaa du la yenu da daan Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul daanam du ko daan day génn Talfa day génn Talfa day si na ci digg géew bi Talfa Diassy boo defoon ndànk Talfa di nga daanu Talfa boo defoon dànk di nga daanu Jaasi Pël woon daa bëgg génn Talfa Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël ma ngay dóor Jaasi a ngay dóor daanoogul da koo bëgg daanoogul Talfa Diassy Peul woon na ko lay lay la xale yi bëri nañu combat bu métti xale yi bëri nañu ngay dóor woon na ko domb hey Diassy Peul Talfa na ca waay waay xale waay waay lamb ja neex na waay oh man kontaan naa oh noppalul <laughs> xoolal lii lamb ja na bëri nañu. Diagué dalu nanu waay waay Talfa Talfa xale yaa ngay bëre waay waay li neex na waay li mooy làmb làmb ngi nii Talfa dem na Ardo ñëpp kontaan nañu ñëpp kontaan nañu arbitre bi siflé waat na Diassy Peulh Talfa ñoo ngay lewaatoo Diassy Talfa Talfa door na ko Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh xale yi bëri nañu ko mbaamu neex te yàgg te metti Diassy na jël ko Diassy Peulh loolu Diassy loolu bu yàgg di dal buntu feeñ jàppante nañu bàyyil tawaat Diassy Peulh jàppante bee ko gënal waaye Talfa ku yamuy dóor baax na Talfa Diassy Peulh Talfa Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël xoolee saat bi ñëpp a ngi ne tekk coow am na fa du na ko ndomba da koy yenu lu def oh lay <laughs> lay la la da koy dóor da koy dóor Talfa ndànk jëlaat na tànk ba Talfa fàq na ko rëpp na da koy génnee mbaa du jeex Talfa jaasi ba xale yi bëre nañu waaw waaw eh, mbaa du ko puus mu génn mu yeex Talfa am na deux avertissement jaasi ba am na quatre avertissement xale yaa ngi ca maas maa ngi dégg quatre appuis cinq appuis Franc daan na soq daan na waaye leeragul ba léegi moo leeragul. jaasi pël Talfa. Thiatou Peulh ngay dóor Thiatou Peulh Talfa Jaasi Peulh Talfa Jaasi Peulh Talfa Talfa Diassi Peulh loolu lanu fu ne ci effort dafa bari lañu joxe dafa bari Talfa Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Talfa Jaasi Pël Jaasi Pël door na léegi góos Jaasi Pël Talfa Jaasi Pël Talfa Diassy Peulh Talfa door na léegi góos abit na abit sifle waat na

noonu la ko Talfa Diassy Talfa Diassy Casse Peul dóor na léegi Talfa dafa mel ni dafa xaw a sonn Talfa Diassy Peul Talfa Diassy Peul Diassy Peul ngay daw Talfa doon na ko bu daal jaasi pël Talfa jaasi pël jaasi pël dem na léegi Talfa jaasi pël dama sonn ñaa yëpp laa boole Talfa Dia pël Dia Talfa Diassy Peulh Talfa dugalaat na léegi góos dóor nañu ko ñoom ñaar ku ci nekk dóor nga sa morom Talfa Diassy Peulh léegi Talfa Diassi Peul jël na ko Diassi Peul jël na ko Diassi Diassy Peulh Talfa eh lay lay laa waa ñii xanaa bëgguñu jàmm ñii xanaa bëgguñu jàmm ñu dolli leen de waaw waaw matal de Diassy Peulh fàq na ko léegi bañ Diassy Beuz Talfa xale yi bëri nañ combat bu yàgg te métti Diassy Beuz Talfa Moustapha Diassy Peulh Talfa Diassy Peulh Moustapha Dia si Peul Talfa Dia si Peul Talfa Dia si Peul temps ba jeex na temps ba jeex na. mais arrangé wu jaasi pël. dañu mi temps. jox nañ ndam ki nga xamante ne mooy Talfa Talfa am na ndam ci kaw jaasi pël.